ci réew Sénégal seul contre tous loolee nag la yéenekaay bi di Walf Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ci tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi ba nëgën a si fitna gaa ngi jollee nekk ci biir réew Sénégal média yi nekkee ci biti réew nag ñoom ñëpp jamono ji nag ña ŋawti ŋawtee kii di président Macky Sall waa CEDEAO nag taq nañu ci répp loi bi nga xam ne rek moo jëm ci report élection présidentielle yi nag jamonoy taxaw nag daal di koy gàllankoor na sënkam loolee nag léeglekaay bi di Le Quotidien daal di xëy bind ci xëtam bu kujje gi jamono ji nag ña ngay gën a yokk seenub doole ngir taxaw amal ay recours ca kanamu conseil constitutionnel ñii nga xam ne rek ñoom ñoo di waa CEDEAO ña ngay sàkku ñu daal di sàmmonteeg calendrier électoral bi waa États-Unis nag la ñu bëgg jamono ji mooy ñu daal di amal élection yi ci date bi ñu ko jàpp ngir mën a sàmmonteeg constitution bi ak loi électorale bi bu ñu sukkandikoo ci département état bi nag vote ba ñu amal ci assemblée nationale mënuñu koo jàppee lu légitime ndax bu ñu xoolee anam bi ñu ko doxalee nag loolee na nag amal ci mu gën a gaawee lii di élection présidentielle yi ba noppi nag fexe askanu Sénégal jot ci li nga ne rek moo di internet bi sàmmonteek lii di liberté d'expression jox taskatu xibaar yi li nga xam ne rek moo di seen àq ak seen yellef tribune yëglekaay dellu siwaat ci situation politique bi am fii ci réew Sénégal mu ne Sénat bu Amérique nag jamono ji am nañu tiitaange lool ci yoon wu danger wi nga xam ne rek ci la Sénégal jëm ci jamono ji mu du yoonub dictature bu ñu sukkandikoo ci sénateur bi di Ben Cardin ma ngay xam ne nag ne président Macky Sall dafa war a dàq nag jëli décision nga xam ne rek mën naa yëkkati fitna fii ci réew Sénégal te jéem a xool nag nu mu amalee élection yi laata mandaawam di jeex moom kay jamono ji nag jafe-jafe mi ngi tàmbalee juddu ginnaaw bi ñu tuxalee élection présidentielle yi l'observateur nag dellu siwaat ci dégâts yi nga xam ne rek tàmbali nañu koo teg gët bokk na ci jafe-jafe yu ñu nemmeeku xaat ci wàllu koom gi adduna bi nag ñëpp na kër kër këpp dal ci kaw réew Sénégal grève général bi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ñoom central syndicat yi société civile bi nag dañoo mer bay futu fas yéene booloo ngir xeex lu ni mel ba tey ci yëglekaay bi di l'observateur ña ngay xam ne nag kaddu yu waroo yi nga xam ne rek am na ci déclaration sur l'honneur bu may sa Wade nag boo moytuwulee la koy xaar dana gën a doy waar yéenekaay bi nag ne la ñu koy toppee bu ñu ko càmbaree ba ci biir mën naa dem ba gën a dëggal nag lu jëm ci ñàkk bokkam ci élection présidentielle yi Rose ni jamono ji nag am na liberté provisoire enquête yëglekaay ne combat bi nag jëm ci wàllum tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi waa société civile bi ña ngay jéem a organiser ay rassemblement ci biir réew Sénégal daal di koy ñaawlu ña waxtaan ci seen biir ak association ngir mën a taxawal nag ay yoon yoo xam ne ca la ñuy mën a jaaralee seen xeex daañu amal lu ci mel ne campagne digitale takk ay morceau yu xonq amal ay grève général ak yeneen ak yeneen lum ci mënti doon bés bi le jour ma ngay xam ne nag diggante Macky Sall ak Amadou Ba du yoo la ñu ko mën a jàppee wala duel yéenekaay bi ne Mahammed Boun Abdallah Dionne ali nguy Ndiaye ña ngay gën a dajaloo ngir waajal lii di dialogue bi ci bi di laas waa Benno Bokk woon assemblée nationale ñoom ñoo ko sookee Abdou Mbow ne luy jiin njàkk ñoom ñooy njàkk image bu Sénégal la ñu bëggoon a salteel libération nag dellu siwaat ci police bi nga xam ne rek démb nag dal na ci kaw caravane bu coalition Diomaye président ca Parcelles Assainies daal di teg loxo nag ñetti député yu Pastef jàppante yu doy waar ñu daal di ko fay nemmeeku ca Pikine jàpp kër Mbay Fall ginnaaw Abdou Latif Coulibaly Awa Marie Coll Seck moom ministre d'État nekkoon fi présidente buy tiye nag tekki na nombal tànkam won ginnaaw président Macky Sall ndax ñàkk àndam nag ci toxa tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi waa forum civil nag jamono ji ña ci communauté bi mu teg ay daan ñi nga xam ne rek dañuy amal ay coup ci kaw institution bi jamono joojee Sud Quotidien nag dellu siwaat ci presse bi nga xam ne rek fi mu toll nii def nañu dànk fas yéene défendre lépp loo xam ne rek moo jëm ci liberté bu taskatu xibaar yi ginnaaw ba ñu jëlee licence bu wal ri nag daal di couper internet bi nag jamono ji lu ñuy la bokk na ci journée sans presse amal ay ndaje yoo xam ne rek daañu ko séq ak société civile bi dem seeti ji nag kii di